seen wàccuwaay bu baax di leen wax ngeen abonné wu ci seen YouTube bi nga xam ne mooy explication wolof iPhone Sénégal ñu leen wax ngeen abonné wu ci ngeen ngeen mën a jot bépp vidéo boo xamante ne nii ngeen mën a jot bépp vidéo boo xam ne def nañ ko ngeen abonné wu bés tous kolos bi nga xamante ne nii moo lay signalé ne vidéo bi dugg na bu ngeen defee bu ngeen abonné rek bépp vidéo boo xam ne def nañ ko ndax dañuy def ay vidéo yu am solo am solo ci wàllum iPhone ak ci wàllum mboolem mboolem xeetu téléphone ngir ngeen man di ci jariñoo incha allah ñu leen di siyaare bu wér a wér nag di leen jox seen wàccuwaay bu baax di leen wax ngeen abonné wu tey nag dañ leen a bëgg a woon nan la ñuy créer compte yow mi nga xam da ngaa yor sa iPhone te xamoo nan ngay def ba créer compte iCloud tey nag dañ leen di woon nan ngay créer compte iCloud ngir mu mën a yomb ci yow lool lool lool lool léegi pour nga créer conte iCloud léegi da ngay ñëw réglage réglage mooy paramètre boo ñëwee paramètre paramètre mi ngi ne léegi fii la conte bi war a nekk ci kaw mais compte bi dama ko supprimer ngeen mën leen a expliquer naka la ñuy créer compte iCloud sa iPhone ndax am na ñu bare bari ñoo xam ne suñ yoree iPhone dañu jéem a wut ku leen ubbil compte iCloud ñu fay ko xaalis ngir kooku ubbil leen ko léegi dañ leen a bëgg woon nañ la ñuy créer compte iCloud pour ngeen koy mën a tijjil seen bopp waaw léegi bu ngeen ñu toppee bu ngeen abonné rek incha allah ngeen topp ñu bépp vidéo boo xam ne def nañ ko rek incha allah ngeen man di ci man di ci jot incha allah léegi dañuy dugg fii léegi buñ duggee fii ñu dugg ñu ñëw fii nii buñ ñëwee fii ñu ñëw fii ci kaw léegi buñ ñëwee fii ñu ñëw fii bind tur bi comme par exemple ma bind Sidi ñëw fii bind lu ma neex Sidi Sidi Hafiz ma bind lu ma neex fii muy sama sant ma ñëw ma ñëw fii ma ñëw fii encore date de naissance bi ma xool lu ma neex sama date de naissance ma def ko bu ma ko defee après ma ñëw fii suivant su ma ko basee te naan ma adresse email bi ngay bindaat fii adresse adresse email bi nag yaay xool tur bi ak sant bi loo ciy bind dolliwaat ci ay quelques chiffres léegi nañ man la nga def nga def Sidi Sidi Xafis laa defoon Sidi Xafis Sidi Xafis laa def nii après ma def ma def cent ma def 977 yaay xool loola neex 977 après nga def arabas ecloud ecloud nga def arabas ecloud ecloud point com léegi ñu ecloud point ñu bës fii xool ba xam dina dem léegi léegi dañuy ñëw fii bu la génne lii xamal ne li nga bind baax na léegi dañuy ñëw fii léegi boo ñëwee fii mot bi bu dee T lay commencé T bu mag bi nga koy def bu dee Y ngay commencé Y bu mag ngay def ñëw fii ci kaw léegi mot de passe bi normal na léegi dana def sa numéro bi nga xam ne moo nekk ci téléphone bi numéro bi mooy nekk fii parce que ci la lay yónnee benn SMS SMS boobu moom ngay eh, récupérer ci sa numéro bi nga xamante ne ni moom mooy dox actuellement boobu moo nekk ci téléphone bi mu nekk ci beneen téléphone moom nga ciy def léegi nga ñëw fii ci kaw boo ñëwee ci kaw message bi fekkente ne numéro bi mu ngi ci téléphone bi message bi mi ngi ne message bi day ñëwal boppam directement bu ñëwee dugg dugal boppam ok boppam daal dugg ci biir léegi après nga bës fii accepté après nga accepté boo accepté nga xaar ko fii ci kaw mu recherche recherche mi ngi recherche mi kon noonu la ñuy créer conte iCloud mais ginnaaw boo créer compte iCloud ba pare am na leneen lu ci des ginnaaw boo créer compte iCloud ba pare bu ñëwee bala ngaa télécharge am na yeneen yu mu lay laaj yooyu it danañ leen ko won nan ngeen di eh, koy activer ba commencé mën a télécharge ndax compte iCloud boo ko amut doo mën a télécharge ci sa ci sa Play Store doo ko doo mën a télécharger benn application muy whatsapp mu yeneen application yi nga xam soxla nga ko boo amul compte iCloud doo ko mën a télécharger léegi fii def na la defal sa code bi nga xam ne moo nekk ci sa téléphone bi ngay utiliser woo waaw def nañ code bi code bi nekk suñu téléphone mi ngi ne di recherche ci kaw nga xaar ko mu recherche ba taxaw après mu daal di dugal compte bi ci téléphone bi léegi après nga dem fi ngay télécharger nga xool bu xam ñëw na war a ñëwul léegi bu la génn léegi ngay bës fii ci kaw nga xaar ko mu recherché wu léegi compte bi mi ngi nii compte bi affiché wu na Sidi Hafiz kon li nii la ñuy créer compte eCloud léegi compte bi mu ngi nii war na ne compte bi affiché wu na ci téléphone bi kon noonu la ñuy créer compte eCloud léegi bala ngaa télécharger léegi dañuy dem Play Store nga xool ba xam boo téléchargé dina ñëw ñu dugg Play Store ñu bari nag dañ lay won ni ngay tijjee compte bi rek mais duñ la won dëgg-dëgg comme boo ko tijjee ba pare yi ñu lay laajaat pour ñu mën laa expliquer yi ñu lay laajaat nga mën koo comprendre nga mën koo euh, defaat nga mën koo toppaat toppaat tegtal yi defar ko ba nga xam ne booy téléchargé du am benn jafe-jafe léegi ñu bës continuer Play Store bi léegi ñëw na mais compte bi mi ngi nii léegi dañuy bës beneen application boo xam ne amuñ ko suñ téléphone ñu xool ba xam application bi dina ñëw war du ñëw léegi ñu jël ñu tànn application bi rek bi nekk ci suuf ñu tànn application bi léegi application bi recherche wu léegi gis nga lii la lay bindalaat lii soo ko bisee basee nag dafa am fu mu lay yóbbuwaat directement instant ba tey li ngay téléchargé nanguwul ñëw mais pour li ngay téléchargé ñëw moom lañ leen bëgg a expliqué ngeen def ko accepté ko ci téléphone bi activé ko ci téléphone bi nga xam ne lépp lu ngeen di téléchargé rek mu mën léegi dañu dugg vérifier vérifier annulé la lay def boo defee annulé du dem soo vérifier dara yóbbu feneen foo xam day compliqué ci yow léegi compliqué boobu falan lañ bëgg woon bu ko defee ngeen comprendre bu baax a baax a baax nan lañuy ñuy tijjee compte ak cloud bu normal a normal ngay télécharge te du am benn jafe-jafe léegi bés nañ vérifier ñu xaar ko mu recherche léegi recherche na ba taxaw léegi lii nii da nga koy activer accepté bi da nga koy accepté boo ko accepté nga ñëw fii ci kaw boo ñëwee ci kaw yii lalay wax nga rempli ko yii nii muy sa tur ak sa sant ak rii ak ak ak yi nga xam ne fi nga dëkk ak code postal ak ville bi nga dëkk yii yëpp da koy da koy da koy da koy rempli ak sa numéro téléphone ak yëpp su ko defee compte bi doo ko normal léegi rii bi mën ngaa def rii diis bu njëkk bi bi ci topp yit bu la neexee bi ci topp nii bu la neexee nga def rii onze bi ci nekk bi ci topp code postal la lay laaj code postal nag ngeen xaar tuuti ñu jox leen code postal bi nga xam ne bépp bépp code booy tijji rek code postal boobu mën na koo jàllale te du am benn jafe-jafe nga xaar léegi code postal bi da ngay def 31 code postal bi da ngay def 31 037 31 037 mooy code postal bi nga xamante ne ni moo gën a efficace gën a gaaw ci mboolem code postal lépp looy tijji mu lay laaj code postal surtout ci wàllu compte ay cloud ndax ñu bëree bëri am nañ problème mu code postal boo xamante ne ni wara bu ñuy tijji buñ bu leen ko laajee duñ xam nan la ñuy defee code postal léegi ñu def Touba parce que dañu Touba lañu dëkk léegi ñu choisir Diourbel lañ Diourbel région Diourbel wala région Dakar léegi ñun Diourbel la kii léegi boo defee Touba bi def code postal ba pare da ngay def ville bi def def état def Diourbel bi choisir Diourbel bi léegi fii sa numéro téléphone lay laaj sa numéro téléphone def indicatif bi 221 après nga ñëw def numéro téléphone bi nga xamante ne ni moom moo nekk ci sa téléphone waaw numéro téléphone bi nekk suñu téléphone mi ngi nii numéro téléphone boobu la ñuy jël après ñu bës fii ci kaw boo bësee ci kaw après nga xaar ko mu recherché wu léegi instant bi compte bi normal na di ngay mën a téléchargé wu téléchargé normal mboolem application boo bëgg te doo am benn jafe-jafe léegi ñu bës fii continuer léegi bës nañ continuer léegi ñu ñëwaat ci application bi ñu doon téléchargé mi ngi nii ñu xoolaat ko gis nga nee na installé ñu bës installé ñun mu ne mot de bi lay laaj ñu def mot de bi ñu bës c'est connecté buñ ko bësee immédiatement gis nga affaire bi mu ngi nii di téléchargé wu jeu bi ñu doon jël ñu xaar ko mu téléchargé wu ba xam dina ñëw wara du ñëw gis nga mi ngi nii di waaj a ñëw gis nga mu ngi nii di ñëw kon compte bi liñ ko tijjee normal na comme que application bi di ñëw intéressé wuñu dañ koy annulé incha allah ñu wax leen ngeen abonné wu ci chaîne bi ndax bépp vidéo boo xam ne def nañ ko rek ngeen am ko ndax vidéo yi ñuy def incha allahu rabbi bëgg nañ bépp lépp loo xam ne am nañ ko muy lu am solo rek incha allah ñu baaxal leen ko ñu leen wax ngeen abonné ci chaîne bi explication wolof iPhone Sénégal yéen lañ fi nekkal ngeen abonné wu ci chaîne bi ndax bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko rek ngeen jot ci incha allah ok jaa ngeen jëf waay